waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi Assane xibaarab doomu xaddafi bi jëm ci fukk ak ñetti milliards yu réewum Qatar baaxee Abdoulaye Wade ngir doom ja Karim Wade moom jiitu réew mi weddi ba mu set wicc di lu nu jàng ci bataaxal bu xalima porte parole am signé Serigne Mbacké Ndiaye maître Abdoulaye Wade di ci leeral ni du moom du doom ja njaboot wala ku ko jege ku séq koppar ak réewum Qatar benn yoon bi Sénégal séqeek moomum réew xaalis euh, neel mbëbël jëm ci wàllu protection di sàmm île de Gorée ngir bépp érosion côtière ca ginnaaw si sax ba waa Qatar yooye soppar ñi xeetu projet bi ci la ko dakkal génn ca moom Abdoulaye Wade ak tëkku jëm ci boom président conseil constitutionnel euh, procureur de la république Ousmane Diagne ne déggul euh, jotul ci plainte wala xibaar jëm ci boobee fànn. commission électorale nationale autonome Sénat bi nu dénk cay ay toog may gëtt ci élection fii ci Sénégal rapport di la mu tënk ci téere ñeel liggéeyam daaw 2010 euh, yëkkee na ko Abdoulaye wadd moom président waroon am ak yeesal sax ci biir mbootaay gi ñett ñoo jël ca ña ko seq mu yeesal ca kenn waaye nag fasul def lu ni mel ci jamonoy weer dese ci élection yi Abdoulaye Wade ne day bañ ñu daal di dugal euh, tuuma beneen jëm ci pexe yu muy tëral ñeel yooye wote donte nag li di wàllu yoon waxul bëgg-bëggu Abdoulaye Wade waaye texte ya la texte ya wax mooy bu nu defee juróom-benn di at ak changé am ca professeur bi ci wàllu droit constitutionnel Ababacar Gueye gis ne kon Sénat bi na muy doxee léegi du lu ak yoon Euh, gëstu tey bi ñu ngi ko jagleel ca ñeel diwaani Sénégal ci jamono yu nawet bi nuyoo fu ca bari ci diwaan nag ab salte la ñu nekkee ca daa mel ni amoonu jumtukaay ngir tàggook salte boobee Abdoulaye Diop ci machine bi. Assane Gueye maître Abdoulaye Wade njiitu réew mi weddi ba mu set wi ci kàddu yu doomu colonel Khadafi Saif al Islam jëm ci ne daa joti jamono fukk ak ñetti milliards ngir doom ja Karim Wade ci réewum Qatar Abdoulaye Wade ñu jàng ci bataaxal bu porte-parole am Serigne Mbacke Ndiaye signé muy weddi ba mu set wi ci yooyee xibaar du moom du doom ja njaboot gi wala ku ko jege ku mës a seq xaalis ak réew moomee di waa Qatar genn ak mbëbët moo doxoon diggante Sénégal ak Qatar 2003 la woon fukk ci ay millions de dollars ca dem ko ngir kon ak yeesal sàmm protéger île bu goxe gannaaw si la Qatar dugal yeesal ci mbébét gi boole cay taax ak yu ni mel ngir tourisme Abdoulaye Wade faf dakkal boobee mbébét waaye mu ne du benn yoon bu mu seq koppar ak ñoom ñooñee di waa Qatar porte parole am Serigne Mbacke Ndiaye signé bataaxal ak weddi gi moom porte parole bi sax 11 euh, tey ci ca palais bo dina fa daje ak taskatu xibaar yi. leneen nag weddi tukkee ci procureur du la république Ousmane Diagne jotu la plainte wala xibaar jëm ci tëkku di menace de mort ñeel njiital conseil constitutionnel Cheikh Tidiane Diakhaté waa Sénat bi yeggee seen liggéey lañu ca tënk ci téere di rapport 2010 njiitu réew mi Abdoulaye Wade dalal na leen démb rafet lu liggéey bi amul nag soppite gu mu amal ca euh, kuréel ak ñëkk a seq jonte loi bi la mu ko wax mooy ñett yu ca ne kenn ko bu nu defee juróom-benn ci atab liggéey defu ko di bañ ñu njottal ko mu ne moom njiitu réew mi ci ay xibaar wàllu pexe yeneen jamono yu weer des ci élection yi professeur Ababacar Gueye xereñ ci wàllu sartam réew nag gis ne euh, tegu ko ci yoon ndax du bëgg-bëggam moom Abdoulaye Wade wala xalaatam waaye li loi bi wax lañu war a doxale kon li ko dalee jamono yi Sénat boobee dëppootul ak yoon Ababacar Gueye ak Ndati Diop. Sénat bi bis bu nu toogee ni dañ ko war a renouveler dañu war dafa am période boo xam ne su jotee dafa am ay membres yoo xam dañu war dem ñu remplacer leen ak yeneen membres. période boobu su jotee président su fekkee ni jëlul membre yooyu dindi leen dugal yeneen membre wàcc na yoon wàcc na yoon ndaxte li yoon tëral moo gën euh, moo moo ëpp doole bëgg-bëggu président bi te bu bëgg président bi su moom dafa ñu wàcc fii Sénat bi nii mu nekkee ba nu àgg élection ndax day bañ nit ñi ñaaw njort si élection yi kooku bëgg-bëggam rek la alors que bëgg-bëggam dafa war méngoo li yoon tëral su fekkee ni bëgg-bëggam méngoowul ak li yoon tëral bëgg-bëggam moo war effacé wu ngir li yoon tëral mën nekk ñu appliqué li yoon tëral su ko defulee rek wàcc na kon mën nañ ni bu Sénat bi wéyee noonu nekkul ci yoon. donc euh, Sénat bi su fekkee ni heure renouvellement bi jot na maanaam ñu remplacé ñenn ñi par ñu remplacé euh, yenn membres yi par yeneen. su fekkee ne heure bi jot na te defuñu ko Sénat bi nekkatul si yoon Sénat bi normal ko. ñu wutali njaareem conseil régional ga foofee am na fay réeroo ko wutale seen biir ñoom conseil jàpp ne organisé amul ca biir mbootaay ga président ba di bu conseil régional ab njaareem diggee na taxawal fa règlement intérieur ngir kon ordre dellu fa ñoom am na fa li nga xamante ne mooy session bu fa conseil ameel nag di sàkku ñu audité saytu personnel bu hôpital njaareem Mohamed Jo bañ taxawale ba léegi conseil régional bu Diourbel ñu koy tuumaal lu ne opposition bi doon ne ab daayira la ñu gis conseil régional de la jeunesse bu Diourbel ne ab GIE moo fi nekk tey adjoint gouverneur bu Diourbel moom moo dugg ci coow li Serigne Babacar kan mi nga xamee ne moo doon teewal nguur gi ci benn session buy amal autorisation spéciale de recettes et de dépenses 2011 nee na conseil régional bu Diourbel bi li ñu fi gis jëmalul dara li nga xamee ne mooy conseil régional bu Diourbel ay jéego yu rëy war nañ koo def leneen mooy ordre ñu indiwaat ko ci biir conseil régional bu Diourbel bi Fallou Mbacké président bi ne conseil bi dina taxawal ab réglement intérieur ngir xeex jafe-jafe yooyu yëpp. benn conseil dina am Sénégal amul te gën ñoo ko war a defar règlement intérieur mooy régir fonctionnement. Euh, plénière bi ak fonctionnement commission yi. président conseil régional yokk ci ne. dina amal ab fonds de solidarité régionale ci biir région bu Diourbel. ci wàllu njàng mi. maanaam environnement. ni ñu ko géré dafa ak fond de dotation bi. Euh, daaw yi ngi si résultat yi am solo moo tax pour bëgg mën a. ci situation hôpital régional bu Diourbel ay conseil ñoo ngi sàkku ñu xayma ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci biir hôpital régional bu Diourbel hôpital boo xam ne lu muy jël ci xaalis dafa bari lool musa Diaw Dieng seen masse salariale rek war naa jéggi lu mot ñetti téeméeri millions Mohamed Diop Diourbel. RFM jërëjëf Mohamed RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minute ak RFM kump tàggoog nag yéen baccalauréat bi examen bi ndaw ñaa nga ca mbokk yi di selmaxa ñoom it di ko defee ci anam ya mu waree la maye bokk na ci méthode Braille reportage ci centre mbokki selmaxa yi ak Mouhamed Ali Mouba maam Mariam ñaan mi ngi yor benn plaque bu am ay trou saa su ne silmaka bi day laal di laalaat feuille bi nekk ci kanamam moom mi ngi def bac ci méthode Braille. lii mooy méthode Braille soo ko gisee juróom benn point la. mooy tax ngay liir di bind. waaw épreuve yi dans l' ensemble mën nañu c'était abordable mais séjour bi daal moo ci braille boobu baax na waaye métti na itam assemblée élèves. au moment où les gens euh, descendent. bi ñeneen ñi wàccee ñun dañuy toog yëgali suñuy épreuve euh, dañuy dañuy yokkal temps ndax euh, nu muy liggéeyee dafa xaw a yeex. loolu su jeexee surveillant yi jublu ci transcription bi Abdou Seck jiite institut national éducation et formation jeunes aveugles yu nekk Thiès. feuille bi xam ne moom la def. ñu jël ko bind ko ci ci mbind mu ñuul bindu mbind mu ñuul waaw bu ko defee loole mu bind ñu jëlaat ko sotti ko ci feuille bi nga xam ne moom la xale di composé hmm? buñ paree loolu lépp lañ koy jël yóbbu ko ci centre bi nga xam ni foofu lañ leen rattaché nekkoon reportage Mouhamed Ali Mouba reportage beneen ñeel rëbës ak askan bu fay yeewoo xam ngeen ni fan yi ci ginnaaw dafa am poto bu fa maasoon ab ndaw mu faatu askan wa yëglu Senelec nag mujj na fa jaar waaye liggéey ba nu fa amal ñoom askan wa jàppe ko fooxal du lu leen doy Ndate Diop ci kanamu boulangerie bi nekk ci rue Mangin poto bi defoon njommel yi daal di nañ koy daaneel waa Senelec jaar nañ fa démb daaneel poto ba wekki lamp yi daal di dagg lii di tamit courant bi waaye ki nga xam ni moom moo di Serigne Ndiaye di conseiller municipal ci dakaar Plateau gis ni loolu dañ ko yéex a def. war nañoo topp li nga xam ne mooy liy maas nit ñi di leen indil problème yëpp waaye ñetti poto yi moom ne nañu niwut ci seen liggéey te ñu ngi maasi nit ba tey seen liggéey defuñu ko ndax poto làmp boob day génne sa war a di maas nit ñi ñu woola téléphone ne la ñëwal defar ko nga lànk ba a ñëw démb bi ñu ñëwee dañu manee yëgunu ko mëne leen waxu leen dëgg Babacar ngoom moom dëkk ci rëbës gis ni waa Sénélec dog nañu courant bi waaye defuñu lu dul indiwaat jafe-jafe ñëw nañu sappi nañu compteur mais ça fait deux jours on a plus d'éclairage public mais dañuy fay nos impôts nañu taalal lamp yi nan vérifié waat tout le circuit. jamono ji nag askan way nekk foofu nekk ci ay jafe-jafe Aliou Sarr di liggéeyee fa nga xam ni fa la accident ba amee gis ni mbir mi jafe-jafe rek lay indi rawatina ci ñii di gone yi. xale yi nan leen di moytuloo poteau yi bu baax a baax na vacances yi jot na xale yi am nan jot te fii day bëri ndox kon boog nan leen jéem a rek téye leen. commerçant yi nekkee foofa ak askan woo fay dëkkee ñoom gis ni jamono ji ñoo ngi xaaraat Senelec jaaraat fa ngir yeneen i defar. jërëjëf ndate ñu jàll wutali diwaanu ndar ak mbokk ya fa yëngu ci ànd ak mbalit meeg cetal diwaan ga ay morso yu xonq la nu takk di ñaaw lu ñu ne anam yu bon ya nuy liggéey ak it fukk ci ñoom yu nu fa dàqee ci anam yu nu gis ne dëppwul ak yoon ndar Mouhamed Nabi si la ay nit yu faree ci liggéey wàllu mbalit mi ci dëkk bii di ndar takk ay morso yu xonq mu bokk ci ay ba jëkk ak guddi ñoom ñuy joytu wàññi koo xam ni jot nañ ko def ci seen bërëb boobu waaye itam ñàkk matériel bu leen mën a taxab liggéey yi Amadou bale bu jeex ci loxob ndey jot a yëkkati yi kàddu. morceau yi ñuy tàkk service bi dafa metti liggéey bi dafa metti amuñu matériel bu doy liggéey bi dafa metti dix personnes yi ñu dindi dañ doon liggéey bi ñu leen dindee affaire bi naqadi te condition bi ñuy liggéey neexul dafa mett suñu morom yi ñu àndaloon condition bi ñuy liggéey neexul te ñu dindi leen te dindi bi neexuñu dañ leen di woon ni li ñu def neexuñu tey neexuñu ëllëg léegi lan ngeen bëgg ñoom nañ leen indi ñu continuer liggéey condition yi ñuy liggéey ñu changé ko ñu defar ko ba mu baax ñu jël ñu jël ñu wóor fekk di jël jël ñii bàyyi ñii ñu leen di dindi si dindi yoo xam ni xamuñu lan lañ koy waxee. Arona Ndiaye chef division nettoiement nekk ci biir dëkk bi di Ndang xam le ni wàññi woowu am na ñenn ñi daal di gis ni mbirum koppar la waaye Arona Ndiaye firndeel lu aju ci wàllub donteelub nawet bi ñëpp ñuy liggéey ci wàllub terrain bi dañ leen soxla laata salte bi di gën a yokku RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. bi leen di xibaar saa su ne. ñu yegg seeg ci xibaar yi ñeel sunu ak euh, fan ca toll mooy gëstu tey bile seetlu gi mooy fu ca bari salte ca jumtukaay ak matuwaay euh, amul ngir kon tàggoog salte boobee tëngeej ak tur wa saa su ne bu nu ko tuddee xel dem ca ñàkkum cet ak diwaan googee Ousseynou Thiam. gannaaw farlu gi nga xam ne nii ñii di autorité yi farlu nañ ci xar ci seen tànk tubéy lool ngir nag setal lii di dëkk bi tëngeej nag mu ngi woy ba léegi di wane kanamu xayat yi ak nawet bi nga xam ne nii mi ngi samp ndànk-ndànk daanaka boo jaaree ci yenn mbedd yeeg yenn sax lii di centre ville gi xëy di googu da nga koy gis lool ay taawu mbalit fii ay taawu mbalit fële jaxaso ak li nga xam ne lii moom mooy taataawu ndox yi di génne na xeet goo xam ne gii jéggi na dayo lool ñu yokkati tamit melokaanu fukk ak lii di canaux a ciel ouvert yi muy kanaal yu mag yooyu nga xam ne nii daanaka amal na njariñ tëngeej ci genn wàll ndaxte moom mooy dawal lii di ndoxu taw mi waaye nag ñu dëkkeek yooyu canal ñu nga dëkkeek tooytaayu suuf yoo xam ni ay nañ ko jamono ji ci diwaanu Tëngéej ba tare sax lii di askan wi nelaw nelaw bu baax lii di guddi gu jot ñu yokk ci nag li ñuy duppee ay dépôt sovage maanaam ay jalu mbalit ci yenn quartier yi fii ci diwaan bi loolu nag jur ak xëy di goo xam ne gii lenn ci askan wi jàpp nañ ne si biir bi ñu nemmeeku temps yi te mu doon consultation bu njëkk ci lii di waa kër docteur moom moo ko waral situation boobu nag soxal na bu baax lu ci mel ni autorité yi lii di commune d'arrondissement bu Rufisque Est xam ne tey ji ci suba gi nag danañu door programme bu am solo ci ay opération pré hivernage ki doon jokkoo ak yéen fi ci Tëngéej di Ousseynou Thiam ngir RFM. diwaanu Saloum Ousseynou euh, foofee wàllu mbënd moo leen sonal rawatina mbënd yëfa daaw euh, tax euh, daanaka ñu fay njort ak jéeya waaye matuwaay jël nañu ko fa ñeel ab pompe électronique bu junni mètre cube ak fukk ak juróomi moto pompe ngir kon ñod di rawale ndoxam taw ya. diwaanu Saloum Ibrahima Benjamin Diagne. suufu passoir bu Ndorong man na ndox te taw bi waneegul mën-mënam. ay waax yu ndaw a ngi tàmbalee juddu ci yenn mbedd yu woto yi gàntal sax ndax taataa yu jéggi dayoo lu weesu passoir boobule xaaxun moo ngi xaar taw bi wane boppam ngir mu tëmb ci ndox mu bari banlieue bu Kaolack bi fàttewuñu sax seen nawetu daaw moo tax ren seen fite ngi tëf tëfi njiitu gox wi jéem nañu leen dalal seen xel ak gannaaw ba ñu fa sampee pomp bu mucc ayib ngir mucc ci mbënn mi ndax fii saa su ndox mi bëree rekk géej lay doon ba tax léeg-léeg waa gox bi génn wane seen mer axtu nañu leen nag ngir ñu bàyyi xel ci jumtukaay yooyu la ñu fa samp Sam un 2 3 wala Parcelles ak saaxa yooyu yépp ci rëdd wu xonq wi lañu nekk moo tax kilifa dëkk bi def na ko farata ci procès ceetal gi ñu dëgmal su groupement sapeur pompier euh, taxaw na moom ngir samp fi fukk ak juróomi moto pompe yu ñuy yaatal ci quartier yooyu le Ibrahima Benjamin Diagne Kaolack RFM. ngir mankum ndox moomee jaar ci yoon nag boobee su groupement sapeur pompier diwaanu Saloum dafa jubóog lekk ci ñu daal di kon samp courant bi ñeel pompe électronique bi ci fi nga xamante mooy ligne améliorée gi ngir moytu bépp dog-dogu courant guy sooxeel liggéey bi leeral yi commandant sous groupement sapeur pompier Kaolack colonel Sengane Diagne ak Ibrahima Benjamin Diagne. électropompe bi nga xam ne moom moo nekk ci xaaxul parce que xaaxul moom li nga xam ne. mooy point bi nga xam ne buñ ko ñëwee di ko pomper en permanence automatiquement ndox yi nekk ci quartier yëpp day dem parce que dafa am ay jonction jonction ak ay sam un sam deux sam trois malgré ça dinañ ñëw def ay matukaay ci sam un sam deux sam trois pour ñëw indi ndox mi waaye xaaxut moom mooy suñu point principal bi négligé wu ma nag parcelle négligé wu ma nag saara négligé ma yeneen zone yi nga xam ne dañ fa def ay matukaay ndax loolu yëpp prévoir nañ ko waaye dañoo ñëw daay demander Senelec ñu daay ñëw daay ñu defal ci benn zone boo xam ne branché ñu ci benn zone boo xam ne du am coupure yu bari te loolu la ñu defal te depuis démb branché nañu électropompe bi ci benn zone boo xam ne délestage yi bu amee tamit bariwul de sorte que moo tax ñu ngi am yaakaar ne ah dina baax bu ñuy jàppalee bu baax dañ koy def ndax suñu liggéey la te bugguñu benn population day laru ci inondation yi bu tawee rek actuellement ah, di nga xool ne eh, eh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu demee ko def dinañ ko def bu baax a baax a baax a baax colonel Sengane Diagne jiite sapeur yi Kaolack maa tamit naka noonu ab salté jamonoy nawet bi mu mel ni kilifa diwaan ga autorité municipale it amuñu solution di saafara ci mbir moomee Ali Bandel Niang gannaaw bi programme soins primaires de l'environnement bi UNICEF doon amal jeexee ak léegi Matam kat amatul ab réseau bi nga xam ni dañ ciy jaar ngir kon daal di jël mbalit bi di ko sànni ci àll ba loole waral jamono yi ba capitale régional bu Fuuta bi bokk ci dëkk yi gën a salte ci réewum Sénégal rawatina ci jamonoy nawet boobe nga xam ni ndoxu taataay yi dañuy jaxasoog salte bi ñuy làmbaajee ci gox gën a rëy ci euh, dëkk bi situation bi nag nga xam ni moom la ñuy dund jamono yi ci doonu Matam dara waralu ko lu dul ñàkkum jumtuwaay Ousmane baa moom mooy njiitalu plateforme des acteurs na étatiques bokk forum société civile bu Matam. yaakaar naa ni suñu nee Matam capitale régionale. ñoo bëgg a nax. population Matam tey ku dem si yeneen régions yi ñëpp xam nañ ni Matam buñ ko tuddee capitale régionale def ko mbuboo mais nekkul capitale régionale boo xoolee dëkk bi foo tourné ay ordures ménagères taw baa ngi ñëw ordures yi buñ ci boolee taw bi xaw ma population Matam nan lañ nar a dundee moo tax dama yërëm population yi vraiment sonn nañ mairie bi gis na salté bi lu mu am volonté problème ordures ménagères yaakaar naa ne problème bu complexe a def waaye nag bi équipe bu bees bi tàbbee ci bopp municipalité beeg léegi nemeeku nañ ni meeru Matam bu bees bi moo ngay def kattanam ngir kon mun a kon soppi xar kanamu dëkk bi li ci ñuul rek moo di ba jamono yi ñuy àddoo benn tracteur kese moo nekk fii te nag mu tukkee ci wàllum partenariat bi commune bi sëkk ci ay xaritam ngir kon mun a dollanti mbalit mi te mbedd bu mu jaar tey laata mu fay jaaraat ñaar jàpp ñetti fan mu nekkoon seen naataango Ali Bandel ñaar fi ci doonu Matam pour RFM. wàllu sport ak euh, Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu sëñ maa ngi lay fay El Hadj Assane euh, wàllu tàggat yaram dañ koy door rek lu ñeel euh, wàllu Jeux mondiaux d'été spécial olympiques di ay maanaam jongante yi nga xam ne dañ ko jagleel ñu seen xel wàññeeku Euh, Sénégal nag te woon mbir yi foofule ca Athènes ca Grèce délégation bi ñoom nag daal nañ ñibbi si démb euh, ñu dal di dem ba foofule ca aéroport Léopold Sédar Senghor daal leen tàllal suñu micro ci fàttali nag ñoom daal dinañu jël lu tollook juróomi médaille ñetti médaille ci argent ak ñaar ci wàllu bronze ñu déglu leen euh, suñu athlètes yooyu nga xamante ne ba ñu jógee Grèce dal di ñëw foofule ca aéroport Léopold Sédar Senghor atama rabara neex après atama nga neex so so anga dëpp nga argent argent mala asan ministre ministre des sports ak waa sport yëpp si fula asi fayda def nañ suñu jom as fula daw nañ am nañ ay médailles c'est bon voilà kon boog ñooñu di suñu ndaw yi nga xam te ñooñu teewaloon euh, ci jeux mondiaux yi ñu doon amal euh, foofule ca Grèce ñaar fukki fan ci weeru juin jàpp ñeenti fan ci weeru juillet lu tolloog 7500 euh, athlètes nag bokk nañu ci mbir moom la bawoo ci dëkk yu bëri ñu daal di waxtaanee wàllu football ak Ligue 2 bu Sénégal ñaar fukkeel ak ñaareelu bëccëg port autonome bu Dakar moom dafa daan démb renaissance bu Dakar benn bal ci dara Étoile Lusitana ak AS Kaffrine dañoo match nul daal di dugal sa morom benn but jàppale lii di fédération sénégalaise bu taekwondo dana xëy am jeno ak woy taskatu xibaar yi euh, ci bu 10 jotee ci piscine olympique nationale lay doon fii nii ci point E euh, ñoom nag lu ñu bëgg a waxtaane bokk na ci attaques yi nga xamante ne jamono gi président bi di Moubarak Lo ñu ngi koy amal ci kawam waaye tamit daal di joxe seen programme laata saison gi di jeex kon boog alaaj asan loolu yëpp danañ si dellu ci nu mu gën a leere si suñu yeneen jotaay xibaar maanaam bu midi ak 13h incha allah. jërëjëf Cheikh